Màcce saar fukk juróom ñaar. fan ginnaaw gi yéesu àndoon na ak Piyeer saak ak Yowaana rakkam yóbbu fu wéer ci tund wu kawe lool mu soppeeku fa seen kanam xar kanamam di melax nib jant te ay yéreem weex ni leer naka noonu ñu gis yonent yàlla Musaa ak Iliyaas di waxtaan ak Yeesu nag daldi wax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 ba kere doomu nit ki dekki noonu taalibe ya laaj ko lu tax xutbakat ya nag di wax ne iliyaas mooy jëkk a ñëw yeesu tontu leen ne waaw dëgg la iliyaas war naa ñëw jubbanti lépp teewul maa ngi leen di wax ne iliyaas ñëw na te xàmmewuñu ko waaye def nañu ko la leen neex noonu it dañoo nara sonal léegi doomu nit ki ndax wax jooju nag